que man ma am la chance am ay mag yoo xam ne ay tijaan lañu rawatina ay taalibe baay am naa ñaari mag yoo xam ne ay taalibe baay lañ et que man chaque gàmmu macha allah damay dem baay yi damay dem Medina Baye ma am sensibilité énorme envers Maulana Cheikh Cheikh Ibrahima Niass ñu gis tamit taxawaay bu am solo bu ngi fi def donc tey daal ñu ne foog ñu ñëw gis la nga ñaanal ñu

sànq rek ci yoon bi may ñëw maa ngi naan Mor Dia bàyyi dama koy liir pratiquement chaque mois mbindam dinaa liir ruuxul ëdëb dinaa lire l'Afrique aux Africains te loolu dafa am solo surtout nga nekk ndaw donc daal suñu xel day dal à chaque fois bu ñu toogee genre nit yu mel ni yéen di leen sàkku ñaan bu baax di jéggalu tamit ci temps bu ñuy jël ci yéen nii mais xam leen ne sentiment de satisfaction moo ñu animé donc ci noonu sax ci laa ñëwee ànd ak sama grand frère bi di Ibrahima gay moom tamit mu nekk seen taalibe mu nekk nit ku baax koo xam ne buñ ñëwee ba yegg si fii tey tamit am na lu mu ci joué donc euh, ñu ngi sant yàlla bu baax Tafa mi tamit ñoo bokkoon même koñ mu nekk nit ku baax nekk ci fayin bu baax a baax a baax. donc euh, di ci am contentement tamit tay diko fi retrouver yéen tamit yéen ak samay mak xamanté ngeen xamanté ngeen ak sama papa ak sama yaay ngeen xamanté aussi ak man ma am la chance aussi jangandok Adama Diallo di ñaanal yalla mu wër ak jamm mais jàppale né rek am nañ contentement bu wër wër di sàkku ñaan ci yeen di sàkku orientation di sàkku suggestion bu jóge ci yéen développement caajaay ñun tamit rek moo ñu amal solo lépp luy jëmale caajaay ci kanam mooy suñu credo moom lañuy xeex guddeeg bëccëg suba ngoon à part loolu amul leneen lu ñu amal importance donc moo tax waxtaan ak kilifa dafay am solo moo tax ngay teg sa tànk ci des chose importante dafay am solo munoon nekk nañoo nekk ay ndaw rek di nekk ci yëfu ñàkk fayda mais à chaque fois dañ éviter le maximum possible lepp lu ñuy rek bëgg nañ suñu gisee ah xalé nañ ci mëna top té après duñ ci am regret dina nekk lo xamné am importance la suñu parents duñ ci euh, yow mi nga xamné tay euh, Prod di ñaan yalla tamit liggéey bi ngeen sumbu na ko yalla éggal ak jamm télé bi mu égg fa na fa égg lu ko mbokk taalibe yëpp wax dëgg bu ñu yégee information ma da ngeen fi ñëw tey ñoom ñëpp dañ ci kontaan te loolu nit ku la yëgul rek du la jox jotaay bi mel nii kon nag tam ñu ngi leen di ñaanal yàlla bu baax euh, yàlla gën a kowel seen mbir yàlla gën koo yaatal simb bu ngeen simbu tamit ngir dox si mboolem kilifa diine fii si caajaay ak tund jegam bi yëpp yal na yàlla defal leen si réussite. waaye tamit conseil bi may njëkk a joxe moo aussi rapprochement population bi. Eh, loolu tam bok na ci lo xamanteni wax deug dina gëna yaatal mbir mi ndax kat damay wax ne caajaay yàlla dimbale nañu ba ndaw ñi yalla na si diine te bay dafa am lu ñu wax mu ne na nga profito si bi ngay ndaw bala mag di ñew kon yaakar na ne ñi fi tok yeb ay ndaw lañ kon ñu ngi profito si sen ndaw si jaamu yalla, si sakku lo xamante da fay dundal njabot kon si ndaw rek ndaw warta tayal kon liggéey bi tamit laajul tayal liggéey bi tam dafay laaj gëstu lu bari liggéey bi dafay laaj aussi jege population bi comme ni ma leen ko waxee waaye tamit information bu mën a doon tamit na nekk loo xamante ni itam day leer nañ ba ëllëg du ngeen si benn jafe loolu bokk na si loo xam dafay dundal média waaw te nag rapprochement bi tamit dafay tax ba comme ni ngeen def nii ñëw fii dem fu nekk si biir caajaay waxuma la caay mais jegem jegem bi moom dafa yaatu goweek CEC nag lépp jegam la kon liggéey boobu tam yal yàlla def ngeen am moyen boo xamante tam di ngeen mën a dem fu nekk. tey ñun ay taalibe tijaan lañ yàlla def ñu may weer yi yëpp mu nekk weer yoo xam ne weeru jaamu yàlla weeru ngëneel la si ñun muy buñ génnee mu xaram moom moo weer bu njëkk mu xaram tey yàlla may nañu si ñu ziare ji sunu sëriñ ñëpp xam nañ ne weeru muxaram weeru bu weeru sant yàlla la waaye weeru ndolla la weeru njëgal la. weeru ziyaare wante la te xam nañ tam sunu sëriñ muy Cheikh Tidiane si la am maqama xatmiyatoom muy guddee fukki fan ak ñaar si weeru muxaram fukki fan ak ñaar muy xatmul wilayaati fi ummati seydina muhammadin loolu si weeru mu xaram bi la ko Cheikh Tidiane am weer bi si topp mooy weeru safar si la yegg si maqama xatmiyatoom bi bi ñu dugg nii mooy weeru mawlid si la ñuy màggal ki nga xam ne moom moo tax yàlla bind mbooleem lim bind tey bàyyi bu waxee ne lépp lu mu am rek maa ngi si bëgg yonent te di wax ne comme li muy nekk ndaw la bind ruul adab boobu kon nag wax ne ndaw dafa war a profité si temps balaa mag di ñëw kon nag ñu ngi leen di dénk loolu di ko dénk suñu bopp ñun tam lépp loolu ngeen xam ne tam soxla ngeen ko si ñun te man ko dinañ leen si eh, teglal sunu kemtalaay kàttan lépp lu ñu manul tamit ñu xam ne fii la suñu xam-xam yam yéen tam ñu ngi leen di ñaana yàlla bu baax rapprochement bi tamit ñoo mën a jàpp si liggéey bi ndax aussi ñun bu fekkee yéen a nekk caajaay yor jegem euh, prod di ko di ko véhiculer ñun rek ñoo ko mën a dundal mooy ñun ñoo war a mën a am ay programme di leen ci boole ñun ñoo mën a am ay xew-xew ak cérémonie fu mu mën a nekk ñu yëgal leen ko ngeen ñëw couvrir ko kon damay wax ne li Moustapha wax rek ne mbokk moom dimbalante la rek dimbalante la rek dimbalante di am nag kontante mu rëy rëy rëy rëy bi nga xam ne tey recevoir nañ ñi nga xam ne dañoo bokk ci ñun muy Morisco mi nga xam ne moom moom ñëpp xam nañ ko muy de Paris aussi man moom tur boobu laay jël effect directement parce que dañoo nekk ñoo xam ne dañoo xamante dañoo yàgg ci dëkk bi lii nag peut-être lu ñuy doog a matérialiser la mooy peut-être ñu ngi doog def lu mel nii mais xadra bi moom yéen ci ngeen bokk parce que bu dul dara yéen ñëpp da ngeen a bokk ci njabootu Mawlana Cheikh Ibrahim beneen bi itam muy manifestation wala luñ mus a am rek loxo Ndiéguène Prod ñu ngi ci te nag ñun xam nañ ñu ay taale baay lañ ay man jub lañ yoruñ dara dañuy góor góorgóorlu te ñu ngi gis ne à chaque fois yéen ñu koy yombalal Maurice Ko mi xam na bu baax li may wax Omar mii mi témoin la suñ gàmm gii passé moom moo ci mujj dañ naan Ndiéguène Prod sax waaye romb na Ndiéguène Prod parce que Ndiéguène Prod jóge na fii dem ba Kaolack couvrir convoi Baye Ousmane dugal ko ci page YouTube boobu ñëpp di ko seetaan kon c'est-à-dire xam nañ ne yéen da ngeen a bokk ci ñun loolu nag fierté la wax dëgg yàlla ndax caajaay moom suñu caajaay la ñun ñëpp ñu ñoo ko bokk te lii defar dëkk bi itam ci ñun ñëpp la war a jóge lii nag kontaante la mbégte la beneen yoon ndax caajaay yàgg ngeen fiy def lu rafet te boobu sax peut-être bari nekk doon président Diegueme Prod tey nag bu ñu demee ba moom mu ñëw def ci beneen touche boo xam ne dafa gën a particulier dañuy gën a sant yàlla wax dëgg yàlla di leen ñaanal yàlla nag fi ngeen nekk balaa déwén ngeen romb ku lu mat fois yàlla na télé dem ba nekk international yàlla ngeen dem ba buy président de la république def manifestation sax ngeen koy couvrir yàlla am na lu ëpp loolu waaw te ku xam fi ngeen commencé ak fi ngeen yegg tey xam ne ngëm sa bopp rek moo am solo loolu na ngeen ci loolu rek la lii yéen suñu fierté nga fierté caaya yëpp ngeen tey jii nii Diegane Prod yéen leen xam caaya amut kenn ku leen xamut tey jii nii amut événement buy am ku leen wowut dafa amut moyens yi wala peut-être mu bañ a xam fi muy jaar mais ñëpp leen soxla loolu nag yàlla na gën a matérialiser wu. parce que comme ni ko Moustapha waxee rek. ñun ak Dieguene Pro peut-être tey ñu doog a ñëw mais yàgg nañ ànd couvrir nañ ci événement yu baree baree bari man moom Dieguene Pro ci la bokk <laughs> parce que Maurice ko PDG bi sama waay la de pare aussi sama sama rakk la donc lii euh, dañ ci am kontaan bu baax di rafetlu cër bi ngeen ñu jox parce que ak weer bi ngeen ko defee muy weeru gàmmu donc euh, ça fera tamit comme ni leen sëriñ bi dalal rek ak ni mu ci waxtaanee ñun ci lii kese lañ nekk donc. Euh, ñu leen di sant bu baax donc di leen ñaanal et puis du ma di leen jox ay conseils parce que réeroo wuñ ak yéen tout le temps ñu ngi waxtaan donc euh, fi ngeen teg seen tànk foofu la xam gën a jege population bi informer juste est vrai loolu rek mooy mooy importance bi parce que bu ngeen joxe tam ay fausses informations aussi bu yàggee da ngeen di perte crédibilité donc te yaakaar naa aussi Morisco ñu ngi développé information am solo te ñu ngi koy teg ci yoon. donc dañu leen gën a encourager ci lool nonu xam nga di leen ñaanal yalla yalla gën leen taxaw gën leen dëgeural xam nga motali mission bi am nek international. di gën dal bu baaxa baax ma sha allah ci eh, initiative bu rafet bi nga xamé denk fek ngeen ko nek ay ndaw yo xamantene ay ndaw yu gëm seen bop bari na ñoo xamantene ne daanaka ñi ngeen tolo jamono yëpp dem ngeen bayi leen. ñu ngi leen di ñaanal yalla yalla yalla guddal seen fan yalla ar leen sutura leen. mboolem li ngeen xamante ne yéen a koy def rek yàlla na nekk loo xamante ne coobare yàlla ngi ci biir di nuyu Maurice ko bu baax xamante ne sama waay la xadara bi fii man maa yor charge de communication bi lépp jëm si média yeeg yooyu ak si communication man maa ko yor daanaka lépp sama loxo lay jaar mais yàlla xam na ne comme gis naa dafa diggante Moustapha Niass te daanaka rakam la frère am la moo tax lu ci bëri buñ may sedd yooyu dama naan ñas bay naa la Maurice ko ba sama programme bi may def fii sax def na deux ans yoo xam ne sax laa demee Korité Eh, ñoom ñooy ñëw couvrir ko kon ñu leen di sant di leen gërëm heure bu ñu leen woowee rek vraiment yéen moom amuñu seen fay amoo leen benn jour boo leen sànkantal ne koo xamante ne directeur mi nga xamante ne tey ngeen ko lu yàggul eh, Maurice moom moo ko présenté xam ne képp ku ko gis rek xam ne saan am na ay bu nekk ci moom miinante ñu mais boo ko xoolee rek xam ne ndeysaan ni ko responsable la ni koo xamante da nga koy xool bëgg ko am na leen loo xam ne yàlla cëralee na ko gis nañ ko si jëmam yàlla na doon tawfiix ci moom yàlla na doon taysiir ci moom yàlla bu mu yàqu yàlla bu mu yàqule ak ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ànd ak moom kayfa tarqaa ruqiyaka al anbiyaa yaa sama an mata wala sama an لم يزا أك في علاك وقد قا لسنا منك دونهم وسناو إنما مثل صفاتك لينا سكما مثل النجوم الماو أنت مصباو كل فضل فما تس در إلى أنت وكلا دعاو لك ذات العلوم من عالم الحيب ومن حال آدم الأسماء لم تزل في دمائر الكون تختار لك الأمهات والأباء ما مدت فجرة من الرسل إلى بصر القوم بك الأنبياء تتبع بك الرسول وتسمع بك الياو بعد الياو buñ nee nit baax na ñu ne baayam a ko baaxal buñ nee nit baax na ñu ne noonu la a mel ndax askanu bokk dañu baax waaye suñu waaja seydina muhammad moo baaxal baayam moo baaxal ay maamam moo baaxal askanam moo tax bu seydi nee na wa badaa للوجود منك كريم من كريم أباؤه الكرماء نسب تغسب العلا بالعلا هلدتها نجومها الجوزاء حبذا عفد سدد وفقار أنت فيه تلمة الأسماء ومحيا كسمس منك مدي أسفرت عنه ليلة القراء laylatul mawlidi lazi keroog ba seydina muhammad juddoo kaana li diinin sururun bi yawmi wajaa'u wata daa iwaanu kisra walawla ayaatu min kama tadaal binaaw ñuy ñaan yal na yàlla def mu télé bi dem ba nekk tele yi nga xamante ni moo gën a sut ci àdduna bi waxuma ci réew mi waaye ci àdduna bi ndax nit amul lu ay dëkkandoom waaye nit amul lu dul ay mbokkam ñun waa Caajaay dañu leen a war di leen ñaanal rawatina ñun ñi nga xamante ñun ñoo nekk ay ndaw féetewoo tagg yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te di ñaan tamit ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ay autorité nekk ci dëkk bi ñu gën leen a bàyyi xel ndax yéen a ngi def liggéey bu am solo yaakaar naa ne ku ci xew la dara fii ci dëkk bi di ngeen dem taxawu ko ci anam bi mu gën a rafete te yaakaar naa ne di ngeen ko woyofal ba mu woyof kon ñu ngi ñaanal télé bi yàlla na wër àdduna ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam